kumbo mooy tuwul fitna dana jog tey ca réewum Gàmbi allah Dakar Times moo ñu xamal ne kuréel ga ñuy wax yées jot na ñoo fas yéen a wàccaat tey ca mbedd ya ñàkkante ak njiit réew ba Adama Baro sàkk mu xabal leen yéen a kaay bi na njeextalu ay bés bi weesu Gàmbi tàngoon na jir ña doon xamal doxu ñaxtu ñu xam ñooñ fa rey journaliste yi ñu teg leen loxo tëj fa ay rajo léegi na gaañu fa ñoo mer askan wa neneen tey fa ñuy fippu xamal doxum ñaxtu far force fra force doole mbaam bi na boo moytuut kon làmbaay nar naa ñaaw tey réew réewum Gàmbi réewum Chine nag jàngoro ja ñu wax coronavirus moo xëlam askan wa dëkk ba jàngoro ja cosaanoo muy Wuhan xam na fa fukki doomu réew Sénégal ak ñaar di ay étudiant fi mu toll ni ña nga jaaxle jàq boole ca aa seet gàttal nee nañu président Macky Sall ngir yàlla kaay jël ñu delloo suñu Sénégal réewum France réewum Maroc Amérique Japon ñoom ñëpp jël nañ seen doom yóbbu leen ñun nag sénégalais yi nekk fii fukk lañ ak ñaar suñ bakkan a ngi ci xottu gerte vox populi moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom la Soleil yéen kaay mooy nañ jiitu réew bu Turki Erdogan dana ñëw tey gana si Sénégal bii mooy ñaareel bi yoon nag yéen kaay bi na loolu li muy firndeel mooy diggante ñaari réew yi jëflante bi ratax na 24 heures yéen kaay na ko hee daf leen dànk de réewum Turki ci seen bopp rek lañ nekk ay marché lañ bëgg am Sénégal di leer neen lu leer ba yegg ca nañu ja mooy ne assemblée nationale adopté nañu code bu bees buy lijjanti wàllu gaz bi si du quotidien moo ñu ko xamal ayaw seetal xam nga pétrole bi am na code bu koy lijjanti léegi nag Macky fa andi beneen bu bees buy càmbar doxalin lijjanti mbiru gaz bi ci Sénégal laa si ne kaay ne génnee gaz bi ci réew mi nguuru Sénégal Macky ak ñoom àndal jóg nañ taxaw ngir lépp jaar yoon yoon wi waa lànk ñoo bañ jël mooy ñaax askan wi jox leen ay flyers ñaawlu sàkk ci nguur gi ñu wàññi ko critique yéen a kaay ñu ko xamal ne nañ pare nañ ngir ñàkkanteeg Macky faneen fu ñàkkante xam mooy APR partem jiitire Macky Sall ba a yaaw seetal ku nekk na maay jiite responsable yi ña ngay xiiroog ŋaayoo rawatina nag ca diiwaanu Linguère jëwriñ ji di Aly Ngouille Ndiaye ak jëwriñ ji di Samba Ndiobène ña ngay gerde ku ne na maay jiitu waa grand place yéen a kaay ñu ko xamal la mu xamal moom source ay yéen a kaay mooy Makhtar Cissé Mamadou Lamine Diallo nee na ñaari nationalité la xam maanaam du sénégalais de comme mi ñu dénk gaz bi xëpp na tontu yu saf sàpp ni gaz ci kanamu Lamine Diallo ga les écoles yéen a kaay ne maxtaar kay li mu wax leer na nee na man Sénégal laa juddoo fi laa jànge ba xam doctorat fi laa dëkkit nag kon loolu Lamine Diallo di wax dara du ca dëgg liy dëgg nag te kenn mënut koo weddi mooy yorinu université kudd kañ ko dénk Ablaye saw créé na fa post bu bees bu fa mësta am mooy directeur général adjoint source a yéen a kaay ñu ko xamal lépp na ngir yaatal ak bëgg yëf ya dox ma dox dem ci turbine yéen a kaay fekk fa njiit réew Macky Sall moom kenn cont kon rong taxaw mel ni ku jaaxle yéen na Macky moom kenn rek la moo jiite Sénégal jiite APR di buur di bummi lépp moo koy def la mu def moom l'observateur mooy xamal sénégalais yi kan mooy maam Makhtar Gueye Jamra njub fexe ba jikko yu baax ci li daal la ne loolu lu baax la li baaxul Sénégal si gis-gisu ñenn ñi mooy ay dajale Miss Sénégal ak yu ñàkk fayda affaire caaxaan-caaxaan yooyu li ci gën a garaaw nag Miss Sénégal ren bi nee nañ fa ñaaw ba ñàppaaral ba ko xool sax ñaaw Amina Badiane ma jiite Miss Sénégal nag tontu na tey ci l'observateur nee na ma am miss bu ñaaw te yaru moo ma gënal ñu am miss bu rafet xamadi yaradiku loolu baaxut li bon dëgg dëgg dëgg te bari léegi Sénégal mooy rey gi ñu rey nit ñi les éco yéen a kaay moo ñu xamal ne démb démb démb am na xale bu jigéen bu ñuy wax njóoba sekk fañ koo jàpp di ko jam paaka di ko jam paaka di ko ko bojj juróom benn fukki yoon ak ñeent jam-jamu paaka ci noon lañ ko reyee ay ndaw reyin gu ñaaw yëf yaa nga amee ci Pikine Ndakaaru xale bu jigéen bi fañ koo woo téléphone mu génn ba demee ci leen ko rey téléphone ba ñu yóbbu ko écouteur am yi ñu bàyyi ko ci nopp ya ci xanam gu ñaaw lañ ko rey waay laas yéen a kaay na faram ba mu doon génn copain ba am am na ñu koy joxoñ baaraamu tuuma de libération nee na agressé wuñ ko rey ko de kii ku lal ay pexem la fayantoo rey gu ñaaw gu boromam waaj moo fa am téléphone portable am ba nag ak portefeuille am bu defoon ñaari junne fekk nañ ko ñu teg ko ca wetam yaayu xale bu jigéen bi na sama doom ji daal bi ñu ko wooyee téléphone mu génn ba léegi del si waatu ndeysaan l'observateur na ko sa doom ji dëgg la naam faat nañ ko caanam gu ñaaw waaye nag tëddee wuñ ko te tamit rendi wuñ ko enquête yi nag kaay ne xam na keneen ku ñu rayati cey Sénégal njaay jëm bët bu set ku waaye xale bu jigéen bi ñu ray njooba sekk ñaar fukki at ak juróom la xam ca Pikine Sips la yëf ya lu ko jiitu nag xam na beneen soxna bu ñu wax yóbba balde fañ koo faat ca Kolda këppati bopp ba jëkkëram nag teg nañ ko loxo démb critique yéen a kaay ne nguur gi kay na noppi rek toog di seetaan mi ñi di ray nit ñi rek comme ku rey ay xar ak bëy te du wax dara yéen a kaay bi ne waaye nag fa mel ni fi mu toll nii nguur gi jóg nañ taxaw jël seen matuwaay ngir dakkar rey gu bëri gi ci réew mi le quotidien yéen a kaay na ko fekk mu jot sénégalais yi danañ jeex de yow seetal agressé nañ ko rey ko sàcc nañ ko rey ko génn rey nañ ko rey nañ ko dagg na bopp ba rey rey rey rey rey rey rey rey rey rey rey rek ah keroog Kaolack ndangaan américain lañ fa rey bërki démbu diwaanu Sédhiou ñu xam kuñ fa rey démbu diwaanu Ndakaaru Pikine ñu xam kuñ fa rey yéene kaay bi ne lu hëpp nag tuuru te fi mu toll hëpp na tuuru